bu soobaali borom poroxaan kenn du mel ni maam jaara bu soobaali borom poroxaan kenn du mel ni maam jaara bu soobaali borom poroxaan kenn du mel ni maam jaara bu soobaali borom poroxaan kenn du mel ni maam jaara soxna jaara maam jaara soxna jaara maam jaara bu soobaali borom poroxaan Alxuraan kenn du mel ni maam jaara soxna jaara maam jaara soxna jaara maam jaara bu soo bali borom poroxaan kenn du mel ni maam jaara soxna jaara maam jaara soxna jaara maam jaara bu soo bali borom poroxaan kenn du mel ni maam jaara sobali borom boroxaan kenn du mel ni maam Njaay mësta julli dajjaab ba mu julli daweedu boroxay sangam tuubal daldi war këram tuubal mësta julli dajjaab ba mu julli daweedu boroxay sangam tuubal daldi war këram tuubal mësta julli dajjaab ba mu julli tey sangam tuubal dali war këram tuubal mosna julli tee jaar waaw mu julli tee wér na jaara tey sangam tuubal dali war këram tuubal nu ji ay dëkkandoo nu ji ñëkk anta njaay mbokkum tala anta mam maaram mi ji ay dëkkandoo waaw ji jàkk ji ami sëriñ Muntaxa ay waral borom gaawar irak i bambay jaay dam ci saa irak baatin waral mu dem xaadam waral borom gaawar la ci loo waral borom daal la waral mu dim xaadam taala anta nonga yay nonga yay xiita tool ya jaara moo sellal ca tool ya na jaara moo sellal toogu ndee ko laa jéebal taala anta dawroodu donga yee xëy ca tool ya soxna jaara moo sellal donga yaa daan roote seen janeer ba moo diilal suura fal jafal ba muy leeral donga yaa ko daarootal ba moo niital sawru fal borom tuuba koo jafal ba muy leeral yaa ko daarootal ba muy niital sawru fal borom tuuba ko daarootal fal ba muy suuru fal borom Tuuba ko jafal ba muy leeral suuru fal borom Tuuba ko jafal sopp sëñ Muntaxa suuru fal borom Tuuba ko jafal ba muy leeral suuru fal borom Tuuba ko jafal sunu xaalifa suuru fal borom Tuuba ko jafal ba muy leeral xéewalug Sëriñ Sall Mbàkke foo taxaw mu fekk la fa maa nga dem mu jiitu la fa. xéwalub Serigne Sall Mbacke. waay demit ah foo taxaw mu fekk la fa maa nga dem mu jiitu. ah foo taxaw mu fekk la fa maa nga dem mu jiitu la fa. ah foo taxaw mu fekk la fa maa nga dem mu jiitu. ah foo taxaw mu fekk la fa maa nga dem mu jiitu la fa. ah foo taxaw mu fekk la fa maa nga dem mu jiitu la fa. taxaw mu fekk la fa baa nga dem mu jiitu la fa foo ah, taxaw mu fekk la fa baa nga dem mu jiitu la fa barakatan rahmatan minallahi badi xayru min ad-dunya wa ma fi jami Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla na suñu borom yokk